bindkat bi ci lu mu yëngu da ciy am yëg-yëg ci lu nekk ci xolam ak itam jafe-jafe jamono léegi ñu nemmeeku ndaw ñi nafaratuñu ci téere yi Mandiaye Camara di bindkat moo ngi dellu si ci lu waral li ni mel. donc euh, li nga xam ne moom moo waral fracture bi nga xam ne moo am ci diggante ndaw yi ak littérature ak lire effectivement nouvelle technologie bokk na ci li ko indi mais li ci ëpp mooy que ni auteurs yi ñu leen di proposer ci seen programme moom la ñu gisul seen bopp ci auteurs yooyu binduñu li nga xam ne moom moo méngoo ak jamono yi jeunes yi beneen bi mooy ñoom identifié wuñu ci ñooñu parce que souvent euh, ay bi bicentenaire lañ ay centenaire lañ ay nit ñoo xam ne dundatuñu xamuñu leen euh, mësuñu leen gis donc ñooñu mënuñu leen a mënuñu identifié wu ci ñoom alors que littérature dafa am loo xam ne daf ci am solo muy identité référence nit ki da ngay référencé wu ci li nga xam ne moom lay def wala nga xam ko nga gis ko gis ni kii moom moo bind lii mu ngi dund nga mën mën a moom xalaat mu jox la envie pour nga dem découvrir ko mais li ci ëpp mooy ñi nga xam ne ñoom lañ leen di liiruloo xamuñu leen. ndax mën ngeen a yor seen bopp ci mbind mi. bu ñuy wax ci ba xam nit ki mu ngi gañee vie am ci œuvre am loolu mën nañ ne déedéet parce que euh, nit ki souvent sax du bind pour gagner sa vie œuvre yi defuñu ko pour loolu boo koy xaar doo ko def ñi ci gagné ku néew ci seen vie ci li nga xam ne moom la ñuy bind mooy peut-être ci yenn conférence yi ñuy rencontre yi ñuy def ci yenn panel yi ñu leen di invité yooyu peut-être la ñuy am ay ay kii mais du livre bi en tant que tel moo leen di gañeloo xaalis ci njaay meek yooyu. ndax mën ngaa dellu si ci pàcc yi ngeen di jaar ba téere bi génn. processus d'édition dafa am li ñuy wax nit ki bind manuscrit bind li nga xam ne moom mooy texte bi nga xam ne moom la bëgg a publier après bu paree mën na ko proposer ci maison d'édition yi déposer ko pour demande d'édition de publication peut-être am na ay processus yu ñuy jaar mu jaar ci relecture bi ci euh, balayage bi ci nettoyage bi ak yooyu texte bi avant yenn maison d'édition yi dañ koy jox benn comité de lecture comité de lecture bi ba pare mën na joxe avis favorable pour ñu publier ouvrage bi wala mu joxe avis favorable bu joxe avis favorable maison d'édition bi maintenant mën na waxtaan ak ki nga xam ne moom lay éditer pour que mu mën ko éditer bu fekkee ne dafa joxe avis défavorable peut-être parce que am na ay manquement ouvrage bi pareegul pour ñu édité ko parce que am na ay affaire yoo xam ne war nañ ko seetaat su boobaa maison d'édition bi da koy wax ki nga xam ne moom moo bind livre bi mu xoolaat ko doog a ñëw am na ci ñoo xam ne nag du ñuy def loolu da ngay ñëw dugal sa manuscrit ñu xool ko proposer la benn prix pour que nga fay pour ñu la. lan ngeen di xaar ci kilifa yi réew mi. ak li ñuy xaar ci état euh, ci autorité étatique yi mooy déjà ñu dugal ñi nga xam ne mooy bindkat yi nga xam ne ñooy dund ci jamonoy élèves yi ci jamonoy jeunesse jeunesse bi ci jamonoy population bi ñu jël seeni ouvrage ñu dugal ko ci école yi ñu def ko ci programme scolaire bu nga xam ne moom mooy les œuvres au yi nga xam ne moom mooy dox au Sénégal lool dina dimbali euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy bindkat yi mais dina dimbali élèves yi également ñu mën a identifier wu ci ñooñu noonu xam nañ ne nag ñëpp mënuñoo dugg ci programme bi parce que ñiy bind bëri nañ mais mën nañu fexe ba nga xam ne même bu ñu duggul ci programme bi sax ñu def des mécanismes yoo xam ne dina yi ñuy euh, bari ci établissement yi di rencontrer élèves yi di rencontrer administration bi di rencontrer professeurs yi ak enseignants yi pour ñuy waxtaan ci li jëm ci li nga xam ne moom la ñu bind pour ñuy waxtaan li jëm ci li nga xam ne moom mooy littérature loolu dina leen a ñu mën a jege ñi nga xam ne ñooy ñooy lectorat bi mais également lectorat bi dina leen permettre ñu jege ñi nga xam ne ñooy bind ñu mën a démystifier que ni ñiy bind ay nit lañ comme ñoom li ñuy ci li dund la ñuy bàyyiku ndaw yi ci nafar la ko waral bari na ndax jotul tey ñu gën a dooleel bindkat réew mi ci biir jàng beeg jàngale bi. bandu tijaan ummi ma fan ma dalom ya hamma dilom jullo naabe